mu xam ne acteur la si football Sénégal. Mhm. ñëpp ko mu nekkoon consultant à la RTS. Mhm. si euh, événement yi a mhm. waaye en fait man bi may bi may bi may bi may jógee à Conakry di ñëw c' était vraiment pour des raisons de santé la woon bon bi ma ñëwee d' abord c' en isolement donc ci période boobu xam nga ci la. ci lañ doon def euh, euh, la liste des consultants pour le compte de la RTS moi j'ai toujours été euh, dans le groupe de consultants pour la RTS donc ça fait trois ou quatre événement sportif yëpp je suis présent malheureusement cette fois-ci daf ma ñëw fekk j'avais des problèmes donc de de de de de d'isolement d'abord je ne pouvais pas être présent yaa ngi sëqat mais munoo nekk ci plateau yi di def yooyu ak yooyu donc pratiquement daal loolu moo gën a tax je suis un peu éloigné donc des plateaux de télévision et tout ça mais maintenant j'ai retrouvé le le le le le le la vocation j'ai retrouvé la parole man xam naa nag balaa affaire yi di jeex comme le Sénégal est toujours en ligne J'espère que dina def quelques apparitions quand même pour le compte des autres de la presse surtout la presse audiovisuelle surtout. comme nga ko équipe nationale mi ngi participer euh, Coupe d'Afrique des Nations def euh, trois sorties ba nga xam ne premier match bi mu gagné difficilement deuxième match bi mu def match nul 0-0 troisième match di di euh, di ñaawlu ñii di naqarlu coaching Aliou Cissé ak gestion équipe nationale loolu lan nga ko gisee. Euh, dans un premier temps il faut que les gens soient patients xam ni la Coupe d'Afrique du loo xam ni décret moo koy joxe du loo xam ni man football rek moo ko mën a joxe. il faut beaucoup de facteurs qu'il faut réunir di nga mën a football da nga ci yokk leneen si c'est je crois que aussi il faut lui attribuer quelque chose mooy Coupe d'Afrique yi mu def yëpp bii moo ci gën a metti ndax dafa tase une pandémie. te xam nga pandémie joueurs yi seen bopp ñoom seen bopp psychologiquement ñoom ñëpp dañu nekk ci ay condition yoo xam ni tu vois dans la tête si tu n'es pas très très costaud boo mooy tu vas rien faire ah donc kooku mooy premier aspect bi donc deuxième aspect bi c'est par rapport à la critique parce que aussi man j'ai fait un constat même avant Coupe d'Afrique bi di commencer pression bi ñu def ci entraîneur bi dafa bari trop day gagné wala ñu dàq ko wala ñuy def li moi je ne suis pas d'accord sur cette forme de critique je crois que Cissé ñi ko war a njëkk a jàppale mooy ñi nga xam ni ñoom la defandoo la génération de 2000 ba ba fi mu toll ak ñoom fi ils doivent être les premiers à le supporter parce que j'ai pas apprécié certains discours de certains footballeurs de haut niveau qui se permettent de de de de de d'attaquer certains jours d'attaquer même d'attaquer même Sadio Mané dans son fort profondeur intérieur et ça c'est pas c'est pas acceptable nañu critiquer mais nañu critiquer pour critiquer orienter la critique dans le bon sens on ne critique pas pour le plaisir mais on critique pour faire avancer les choses aujourd'hui qu'est-ce qui se passe le Sénégal occupe la première place on n'est pas content du jeu mais pourquoi le Sénégal ne joue pas bien xam nga kooku c'est une question qui est là doo ne amuñu ay joueurs il y des jours qui sont très bons le problème bi yëpp mooy le projet de jeu qui ne passe pas mais le championnat n'est pas encore fini ce qui est clair si l'équipe retrouve son jeu elle est capable de faire mal ah Sénégal est capable de faire mal deuxième point bi mooy les autres adversaires ñu ngi ñuy le terrain ndax ñi nga xam ne ñoo daan sonal Sénégal mooy les équipes du Maghreb mooy ay Algérie Tunisie Maroc Égypte dañu yàgg mës sonal et ce qui est clair au rythme ni affaire yi di ne Sénégal continue di jouer parce que adversaires y ñu ngi wàññeeku. donc ce qui veut dire quelque part bu ba nga xam ni équipe la yoo xam ne football rek moom moo des le Sénégal est très bien outillé et très bien armé pour jouer devant n'importe quel adversaire du monde mais il faut que les gens comprennent aussi que on est en football on est en Coupe d'Afrique qui est très cotée en bourse et que y a nekk des gens qui savent trop bari na trop Cissé mu ngi vivre pression bu méttee méttee méttee métti léegi nag nañu laissez-le un peu le temps de de de de souffler un peu j'espère que les joueurs ils seront en mesure d'apporter des solutions par rapport à la à situation actuelle. gis nga ni euh, deuxième tour bi Aliou hmm. il est dans l'obligation xam nga Sénégal problème am yëpp yëpp yëpp yëpp c'est un problème de meneur de jeu ñun li nga xam ne mooy suñu force au Sénégal mooy sur le plan tactique 4-3-3 la ñuy jouer ah 4-3-3 nag ñaari version rek moo si ne offensive ou défensive soo amee ñaari numéro 6 il faut nga am benn meneur de jeu ah depuis 10 ans ay si c'est peut-être loolu mooy problème am mooy ba tey mënul indi un meneur de jeu meneur de jeu mooy koo xam ni da ngay nekk numéro 10 nekk ci digg bi. boo yoree bal mën a wàññi benn ñaar ñett pour créer le surnombre mën a dugal bi wala mën a jox gars yi ñu dugal bi te kooku benn jour lañ fi am mooy Sadio Mané le fait que ñu koy excentré nii amul ku koy géloo amul il n'y en day def excentré wala di def numéro 10 à la fois cumul lay def mais bu amoon ku mën a jouer numéro 10 Sadio mën na des foofu mais ñun Sénégal amatuñu joueur bu mën a yenu match ah nekk numéro 10 di football loo nit ñi ba pare moom muy jouer ci boppam xam nga loolu dafa mës a nekk force su Sénégal mais depuis Cissé bi mu ñëwee ba léegi loolu bokk na ci problématique yi nga xam ni il faut que mu résoudre problème boobu il faut que mu chercher un meneur de jeu et le seul joueur qui a les dispositions pour être meneur de jeu actuellement mais c'est c'est Sadio Mané ni ñu koy jouer à l'excentré nii c'est pas tellement la bonne solution ah moom la war a mën a replier def ko numéro 10 le reste dem jouer ji ci kaw numéro 9 yi bari nañu excentré yi bari nañu mais un meneur de jeu ku mën a sol xam nga mën a di jël bal wàññi benn ñaar ñetti adversaire créer surnombre loolu moo manqué actuellement dans cette équipe mais il suffit que mu décrocher Sadio Mané comme meneur de jeu rek l' équipe peut aller très loin man xam naa ni équipe bi mun na dem fu sore sore sore sore sore sore y' a quelques réglages à loolu moo fi nekk mooy y' a quelques réglages puis ils ont le temps équipe bi mu ngi bénéficier wu malade yaa ngi ñëw l' aussi mooy. Euh, ñi nga xam ne ñoo ngi doog a jóge ci feebar bi aussi il faut qu'on sache est-ce que ñu ngi entraîné bu baax parce que boo nekkee un joueur comme Koulibaly nga gis match bi mu def keroog xale yi ni ñu koy rombee di ko fel nga xam ne kii manque de compétition moo fa nekk parce que boo jógee ci un mois d'arrêt war nga jël beneen programme pour mun a tolloo gars yi ndax gaa yi ñu ngi ci léegi ay deux cent soixante-dix minutes de jeu yow boo ñëwee amuloo volume boobu nga bëgg a ñoom du ngeen tolloo ah donc là aussi c'est des détails mais c'est ah donc li ki des yëpp mooy réglage ah Sénégal bu ñu régler ce problème là si c'est pour régler problème boobu rek équipe bi mu na dem mun na on peut gagner la coupe d'Afrique am nañu équipe bu gagner la coupe d'Afrique non non non y a beaucoup de moom kay côté animation du jeu moom c'est le problème de Aliou Cissé ça il faut que tu n'as pas besoin d'être entraîneur pour comprendre que ni Sénégal équipe bi le problème d'animation du jeu ça lui pose problème c'est-à-dire il est trop trop défensif parce que boo xoolee la défense à quatre déjà gardien de but ñëw muy cinq nga jël ñetti milieu terrain défensif donc deux sentinelles de métier et un numéro de métier l'équipe a une vocation à jouer derrière donc tu laisses trois attaquants fële mais kan moo leen di jouer loo tu ne trouves pas donc c'est des questions yoo xam ne c'est des questions tactiques ah boo ko defee benn yoon ñaari yoon ñetti yoon maintenant il faut apporter des solutions su actuellement c'est c'est c'est c'est ça fait partie des problématiques de Cissé mais moi je sais euh, il va prendre conscience de ça ah boo ko dégloo dans ces dans ces derniers les les les les les dernières conférences yi muy def nii yëpp da ngay xam ni il est conscient maintenant j'espère ah j'espère que il va écouter les gens et puis lire entre les lignes parce que nit ñi aussi moom moo moo leen Sénégal est un pays de de liberté les gens sont ils disent ce qu'ils pensent nous sommes un peuple fondamentalement critique mënoo leen tere critiquer danañu wax yow nag yow yaay déglu yaa am une capacité d'écoute et puis tu tires les leçons de ça seet nooy def pour progresser voilà. bon mmh. bon ça aussi c' est un autre débat débat bon ñun on sait ce qui se passe la direction technique bon c' est la Yacine Marie quoi qu'on dise aussi il a mis beaucoup de temps ici Hein, <laughs> est-ce qu'il fait réellement son, son, son rôle dans, dans, la, dans cette direction technique Il a les compétences, il a... Mais en tout cas, on sent pas son influence, en tout cas, dans ce qu'on appelle une direction technique. Donc, on a l'impression que si est, il est tout seul. Ah bon, l'année dernière, il y a eu, il y a eu l'arrivée de Dabo et de, et de euh, Oumar Daf, qui ont été très utiles avec lui jusqu'en finale. Et qui, pour demain, finale, c'est une médaille d'argent. et les grandes nations, c'est ça, c'est par rapport aux médailles. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas été. Mais cette année, on ne les voit pas. Ça veut dire que si c'est encore aujourd'hui, seul encore par rapport à, à, à ça. waaw euh, mais mais mais c'est que là aussi kooku c'est la kooku moom c'est la gestion de l'entraîneur si c'est à utiliser trop de joueurs aussi xam nga bu fekkee ni yow chaque dimanche tu amènes une équipe chaque dimanche joueur boo dégg nga indi ko le Sénégal est un pourvoyeur de de de de joueurs on a plus de 600 joueurs qui sont dans le monde donc la sélection nationale amul problème de joueurs on n'a pas de problème de joueurs problème c'est un problème de choix tactique quels sont les joueurs qui sont adaptés à tel système de jeu loolu entraîneur bu fi ñëw c'est tout ce que tu dois faire quel système de jeu avec quel joueur joueur yëpp nag ñu ngi fi c'est là où l'entraîneur entre en en en en vigueur c'est kan lay choisir quel est son groupe de performance deuxième point bi important aussi mooy équipe day am titulaire une équipe il y a des titulaires il y a des remplaçants il y a des mais c'est comme ça partout dans le monde c'est comme ça mais bu joueur bi demee ba nga xam ni xamul ndax titulaire la xamul ndax dina war a jouer ça ça pose des problèmes. Ça change du chaque. mais c'est pas bien. Moi, je lui dis ça, les yeux dans les yeux. Équipe, c'est d'abord des titulaires. On se bat pour être titulaire. Man, ba may jouer fu mu nekk dama bëgg a nekk titulaire te pour nga nekk titulaire il faut avoir les arguments. soo marque mais tu peux citer jours au moins 7 8 jours. mais aujourd'hui je ne peux man. Ah, malgré mon expérience et mon expérience mënu ma la wax semaine prochaine kan mooy jouer je peux pas le dire est-ce que moom sax il le sait je me pose parfois la question c'est une dafa mel ni affaire tout tâtonnement la et ici à ce niveau là on tâtonne plus na équipe bi léegi dafa war a génn pour aller jouer direct aller vers la finale ah essayé yi essayé nañu malade yi ñëw nañu il a tout en place maintenant pour propulser l'équipe là vers la finale vers la coupe vraiment Voilà, je vous remercie moi aussi.